di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool lool lool te wér bisimilah alaaji. jërëjëf soxna Degene yàlla nañu ko yàlla boole ñun ñëpp. amiin amiin alaaji la ci lool nag. amiin alaaji. te mu jigle te jig sa waajur bu baax wi. allahumma amiin amiin mu fekkee lépp moom mi doon sonn. wallaay wallaay kamara ji biyante boy. di saare bu baax sama ma koy faral di wax xalifa général kullu murit. ndeysaan. di sëriñ Cheikh Ahmad Mbacké. ndeysaan. xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg lool Sidi Maxtaar macha allah ah, eh, xam nag mooy sama wasale Serigne Sidi Mbacke ndeysaan moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke lii mu dëgmal li bisu waajuram yàlla na si yàgg ak jàmm amiin mu ngi le 31 ak rakkam yëpp si ñaanal bu baax laat kam mi ko jiite ndeysaan tey nag hmm. du ma ni murit yi aay teenub Cheikh Ahmadou Bamba ba ca njaareem hmm. moom la Serigne Sidi Maxtaar Mbacke hmm. xalifa général ku lu murit jox ko aramin mhm. aramin ak euh, Kader Mbacke ñoo bokk ndeeg baay ni ko yeesal ko maa ngi jóge Touba ñëw njaareem hmm? fi ñu toll mi nga ci yoonu di jëm si njaareem alaaji jullit yëpp ah? yëpp nag doo mën ne sax murit yi dëgg def na ci lu ne tale yëpp dem na ndeysaan bi nee na fu waaye mën a nekk na ko ñaan muy teenu Cheikh Amadou Bamba ne ci biir kër gu mag dëgg la macha moom la ñu bëgg a yeesal lépp lu ñu fa ñaan yàlla na baawaan allahumma amiin amiin lépp lu mu fa ñaan yàlla na jëriñ réew mi adduna bépp amiin amiin alaaji xam nga teenu Serigne Touba hmm. wax dëgg yàlla hmm. euh, buñ ci amee lu ñu leen luñ ci bëgg hmm. sang bu tedd bi dem di ko ñaanal ndeysaan kooku mbégte la moo xam ne mii ndeysaan ñun ñëpp yàlla nu wàll ndeysaan ndeysaan aramin moom la ko sëñ bi ne ko mooy sëb cër ndeysaan ndeysaan ak carrière bokk ndey ak baay moo nekkoon États-Unis ndeysaan ndeysaan nañu biig sëñ bi fas yéene yendu tey jii ñaanal taalibe ak jullit yëpp macha allah ñaan yal nañ ko jeex na yàlla tas ci barkeem ci barkeem ci barke Seydina euh, Mohamed sallallahu alayhi wasallam di siyaare Youssou Ndour rek ni koy fàtte borom kër gi ndeysaan yal na teraangaam yokk ndeysaan yàlla defal ko jàmm ak sutura ak waajuram yëpp mm. ak ñu koy jàppale ndeysaan ak rakam yi fi nekk yëpp ndeysaan ñaan kilifa diine yëpp ak ñu aada yëpp macha allah yàlla dimbali nag ñu dégloonu xel ndeysaan te ba bañoo dégloo xol dëgg la laaj ndax dafa am ko wax biig ni ma di leen ràññile ma ne ko déedéet. Mhm. am nañu bu ñu nee cas euh, thème. siise ko da gaaw. dëgg la ndax ña ca nekkul. la moomuñu ko waxaale wuñu leen ña nekk ko moom. dëgg la laaj kon. dañ ko dégloo toujours ndeysaan ñi nekk ci waar yi di béyte mbéyef gi rafetul dëgg la laaj ñoo ñoo loola dëgg la laaj ñi setal dëgg la ñooñu moomuñu ko déedéet waxaale wuñu leen dëgg la dëgg la dëgg la laaj dégloo xel ndeysaan ba ñoo dégloo xol ndeysaan ndeysaan ndeysaan alaaji kontaan naa fa tabaarakalla macha allah delluwaat rek di ziyaaraat kilifa diine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 ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci seetu askan bi dugg nag ci hôpitaux yi nemmeeku bu baax a baax malade yi dugg ci dispensaires yi dugg ci case de santé poste santé yi doxantu ci néeku lënd mi ndax ñàkk ba ci mbedd mi axankay am na di nemmeeku bu baax a baax malade yi waaye dellu rek di ñaan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 ah ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax moom ah, Tanor nekk ah, ci di euh, ah, technicien son di xale waaw ak ñu nekk xale bu baax ak di ko jaale Joséphine macha allah di leen ko jaale ñoom ñëpp fa tabarakallah macha allah ndax àddina bi noonu la demal maa ngi ñëw rek la fa tabarakallah macha allah xam ngeen ni nag seen émission bii di wareef ay thème la mu mel ni altine ba léegi nag yëkkati nañu thème ci kàttanu yàlla thème bu am solo àllaaji ndax thème boo xam ne dafa tënk lépp ndax dañu ne fonk sa bopp ji fonk sa bopp nag suñ ko waxee defe naa ni lépp a ngi ci lan mooy fonk sa bopp loolu defe naa dégg-dégg bi des des na bu baax a baax wala boog dañoo dem ba réeree lan mooy fonk sa bopp ba tax réew mi lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri daal changé changement yi boobu nga xam ne ah da nga ne réew mi lu bëree bëree moo tax fonkatuñu ko fonkatuñu ko dégg nga fonkatuñu ko alaaji te dañu war a fonk suñu bopp fonk réew mi fonk yu bëri ay valeur yu bëri ñu delloo si ko alaaji lool loolu daal suñ ko waxee jikko la defe naa ni loolu boobu ba léegi maa ngi lay jox ay paquet nga koy wecc di ko tasaare bu baax a baax fa tabarakallah macha allah kon daal alaaji lii mooy thème bi ñu fas yéene ci nag ànd ak yéen ñi ñuy setaan ci réew mi ak ci bitim réew soo leen di wootee ci réew mi xam ngeen numéro bi bind leen ko mémoriser ngeen ko sax 88 628 22 22 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 allah ji xanaa dañuy ñaan yàlla door ak bisimilah rahmaani rahim waaye ñaanaat buur bi yeggaleeg alhamdulilah rabil alamin di ñaan yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim waaye allah ji balaa ñuy def revue de presse nag information bi xam nga ni léegi wareef. jeudi bu ne am na fu muy terminé ndax dañuy dem ci gox-goxaan yi ndax jege leen yéen ñi seetaan alaaji kon dafa mel ni tey ci ngoon ci kàttanu yàlla su ñetti waxtu jotee ñan la ñuy jox rendez waa fan. Grand kon tey ñu ngi Grand Dakar. tey nongo Grand Dakar. waaw. Euh, Grand Dakar amitié point 1 e. ñëpp la ñu boole. E. waaw. Euh, ngay wax. waaw bépp lay waaw waaw waaw. tey garaan ak xàll kon tey ku ku bëgg a participer si wareef bëgg ñoo seetaan rendez-vous bi fan la du buntu cosaan buntu cosaan la trois heures wareef ñëw ci yéen waaw te bari na ñun fay teeru nag waaw waaw waaw Moustapha Niang ndeysaan sama gor ak safeetu ndeysaan ndeysaan rawante nag maire ndeysaan ndeysaan maire moom démb la pare dëgg la ak Cheikh ak euh, euh, ak ñoom ñëpp. dëgg la foofu la ñuy defee wareef. dëgg la. Euh, te it nag nii wareef bi def soxna dëggan. ah nit su mënut a jóg wax soxlaam da nga koy yegg mu déye la ko. dëgg la alaaji. heure bu la ko déyee jéebaane na ko. dëgg la mu faju. dëgg la alaaji moo tax war waa déplacé léegi fu mu nekk nii macha allah gunge ngeen ñu moo tax dañuy ñëw di saafonteeg yéen fi ngeen nekk foofu lañ leen di fekk ci kàttanu yàlla loolu télévision Futurs Médias dafa ñëw ci wareef. ci li ñu koy wax saison 4 alaaji mm. non alaaji ñàkk ñu fréquenté erreur bu rëy la ah. ñàkk ñu fréquenté erreur bu rëy la dañu ñu ngi ñëw ci yéen ci mi ñëw ci yéen ca bitim réew ci kàttanu yàlla fu mu nekk ni nag tey ci ngoon 3 heures Grand Dakar waaye laaj loolu neexul laaj ma bonus bi man la fan la suba ci 11 heures fu ñuy nekk ci kattanu yàlla ba tey fan tëngéej men ah, Rufisque men kon suba ci kattanu yàlla ci 11 heures ñu nga tëngéej <laughs> yaa ngi dégg ci kattanu yàlla ma <laughs> xuus wala ma bàyyi xuusal alxames bii di ñëw ci kattanu yàlla ci 11 heures fukki waxtoog ñett fu ñuy nekk ci heure wareef xanaa mbuur de Thiès Thiès jiitu benn dëkk ñaari gaar foofu la ñuy dem alxames maanaam tey nay leer déglu leen ñu bu baax ndax dañu waxoon fii ku ragal na nga daw ndax te ngi ñëw dal seen kaw alaaj tey ci kàttanu yàlla ci trois heures fan Grand Dakar Grand Dakar Grand Dakar woo cos fépp buntu cosaan daal ñu ngi fa di enregistré wareef ci kàttanu yàlla suba ci kàttanu yàlla 11h alaaji ñu ngi fan. tëngéej tëngéej ci ci jëmu boppam. comme euh, beneen jeudi ba ci kàttanu yàlla yàlla may fekkee ak tal alaaji ñu ngi fan. kees <laughs> beneen jeudi ba ca topp ci kàttanu yàlla ñu ngi fan. mbuur waa alaaji bàyyi ma yem fii. ndax xam nga lu la suñu xamee fi nga dem dañ lay fakkatal. Ah, doo yegg cat dafa gaaw cat dafa bref taluñu ko <laughs> taluñu ko. alaaji nañ dem seetaan revue de presse dellu si lii macha allah macha allah nañ ñu ñaanal fa tabarakallah macha allah waaye xam nga li dalal sama xel mm-hmm. alaaji ñu baax ñëpp ak ñuy ñaanal waaw ñëpp fa tabarakallah macha allah gis nga soxna déggan mm. Ismaïla Lo ndeysaan yal na yàlla yokk fanam amin amin ya rabbal alamin eh, bii laa ko gis waaye soxnaam nee na sa mbokk Ndefat Diallo sama mag sama xarit sama seex ñaanal nañu ñaan goo xam ne dëgg la nee na ci yéen lay génne samay waay di ko terminé ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan dafa daw dé ndeysaan Ismaïl Lo nag dafa yiw yàlla ko yàlla def amiin amiin yaa rabbal alamin gën koo nag jàppale ci dara yi Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa la moo ni ma ndeysaan ngi tas télé bi ndeysaan ndeysaan ci new la ma fekk ndeysaan ndeysaan moom Caane Caane Diop dëgg la dëgg la mooy dégg Ndeye Fatou sa mas waaw ni ma daal njaay man ko am ne ma ku déggatul dootoo dégg ndeysaan waaye lii daal jor na wa def ndeysaan ndeysaan ndeysaan moom it maa ngi koy ndokkee wallaay wallaay ndeysaan wallaay waaye Ismaïla daal mat naa bàyyi xel lu baax rek baax allah ji lu baax rek a baax waaye ki waral coow li nag xam nga ko nañu ko ñaanal cat dafa gaaw nañ jëm seetaan revue de presse dellu si jërë ngeen jëf maître Alaaji Amadou Sall ku ko xamul it dégg nga turam Pape dimbaleel téléspectateurs yi demal ci observateur indil ma maître Alaaji Amadou Sall mi ngook kii moo fi doon tam ay jamono Macky Sall tey moo xëy amee xët u njëkk observateur maître El Hadji Amadou Sall dajale gi ñu bëgg dajale waat njabootug libéral geek la mu ca xalaat ak la mu ca fas yéene dox ak la ñu ko ca fal euh, mu yéene kaay bi dellu si waat ci moo di secrétaire exécutif bu retrouvaille famille libérale wax na ca leneen loo xam ne wax na ci it moo di message boo xamante ne ji Abdoulaye Wade ma ca Versailles yónnee na ko doom ja Karim Wade ma ca Rëbës El Hadji ji a bàyyam Amadou Sall ne la gën a namm ci baayam Abdoulaye Wade yemul foofee ne ci biir observateur gën na faa sori ci wàllu politique politique boobee Sénégal ak ni ñu koy doxalee yéenekaay bi di populaire xëy ñu xamal ne waa forum civil ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ci kanamu député ya ngir ñetti loi yoo xamante ne ji lañ ca jublu mooy gën kon sellal euh, yorinu politique yi ak doxalinu politique bi ci réew bu Sénégal anki yéenekaay ne lu ñuy def nañ ci boole pagaay bu bi parti politique yi ñoo far sax ëpp askan wi ndax jàpp leen réew mi mel ne Sénégal yéenekaay bi ne nañu ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaari parti politique am nañu ca loolee dañu ko war a leeral li leer démb lañu ko leeral ci kanamu Macky Sall Pape Ndil ma Sud Quotidien euh, yéen kaay bi wala boog populaire tegal ma noonee bu la neexee sax nga teg ci soleil ñett ñëpp ñoo bokk nuñ ca waxee doore ko Sud Quotidien mi xëy ñëw ñun ci inspection générale d'État gi siiwal seen rapport siiwal nañu rapport ba yéen a bi nañu rapport boobee Sud Quotidien moo ñu xamal ne xam la nañ ne lu toll ci juróom benn fukki milliards ak ñeent jot nañu ko économiser ci liggéey boo xam ne IGE def na ko waaye rapport public la mais am na secret ay mbóot yoo xamante ne ji am na ko te kenn waxu ca populaire xëy dellu si waat ci loolee ne ñu ñi nga xamante ne ñoo di IGE nee nañu mal gouvernance am na ci réew bu Sénégal ngëf yàgg nañu ko waroon a doxalee am na foo xam ne inde ba dafay leen wax moo di dérogation bu mu ci am bu ñu càmbar ñii di bàyyi ñii IGE na lëj bët ba ci ñoom nguurug Macky Sall seenu doxalin yéen a kay bi di Le Soleil nañu Macky sàkku na ci waa IGE ñu bàyyi ko xel xool nan lañ koy lijjantee Walf Fadjri moom tënk wax ji ci ne Macky jël na fetal gi teg ca loxoom la des rek moo di tiire fan lay tiire ñi nga xamante ne ji ni ñuy doxalee baaxul santul yàlla danañu ko lijjanti Pape ñu lijjanti ji leneen andil ma mi xëy dikk ak ñun ci ñi nga xam ne ñooy taale ka tëmbalee ka buujlee ka ballale muy lan ñi ci mbënd mi yéen bi xëy ñu xamale nguuru Macky Sall nee nañu nag fii la ñu mën a yem tële nañu mënuñu ci dara ndax la ñu naan yàlla yaatu gannaaw mbënd mi nee nañu taw bi taw bi yàlla la du ci ñoom le soleil nañu moo ne day def nañ ci jéego jéego yi lan la yéen kaay bi nañu eh, lu aju ci xeex wàllu mbënd mi lu toll ci eh, ñeenti milliards dugal nañu ko ci ñeent eh, juróom-benni téeméeri sapeur pompier ak ñeent fukk ak ñaar def nañu ko ca lu toll ci quatre cent moto pompe di ñeenti téeméeri moto pompe lépp dugal nañ ko ci mbënd mi ngir taxaw askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji ñoo ngi koy dund ki nekkoon ci jafe-jafe te génn ca ci wàllu tàggat yaram la tous les sports la soxla Pape Samba ma ngoog Souleymane Diawara yéen a kaay bi nañu la mu wane ca Marseille la muy firndeel moo di Souleymane Diawara jeexalagul waaye sport xëy ñun ci lu jeex ba noppi mooy max Sénégal ak euh, Égypte ci Afrobasket ba yam ca Côte d'Ivoire waaye sport xëy ñu xamal ne gaynde yi am nañu ndam waaye la leen taxa naroon a perte euh, yéen kaay bi dellu si naan ndax score ba bariwul 72 la ci 70 beneen journal bu ci dellu si waat mu di observateur xëy ñu xamal ne gaynde sénégalais ci wàllu basket gagné na Égypte démb waaye gagné ga dee ko dégg xaw tuuti ñu nekk ci ay jafe-jafe Modou Lo moom xëy na ci sunu lamb demb fa la nekkoon tey it fa la xëy nekk moom mu Modou xarañ loo gonek Rock énergie gi gonek parcelle gi ma nga fay wax di xam ne ne euh, kii di Eumeu seen dafa war a xool bu baax fi nga xamante ne ji foofu lay teg tànkam Balla gay 2 mu ne bu ko neexee takk fukki jabar sama yoon ci moom man li ma xam ba xam ko moo di ci lu yàggatul dara dinaa takk jabar yéen ñi am jabar yéen la yenekaay bii di enquête di waxal journal bi muy grand place kon dafa xëy defu enquête jëm ci ñi nga xamante ne ji ay borom kër la ñu ba noppi jonge teg ci journal bi nañu noonu dañ koy doxee ñoo jëndal seen jabar beeco ñoo leen di jëndal ay fer ak yeneen yeneen yu ñu mënta wax ba ak jàmm jërëjëf kon mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag euh, ànd ak yenn seetaan revue de presse bi waaye Alaaji revue de presse bi fi mu daaneele man intéressé na man ndax dëgg dëgg dëgg dëgg am na loo xamante ne dañuy defee nii daal mën euh, jigéen rek la war waaye góor tamit day joŋee Alaaji loolu dara nekku ci wax ju neex ak def yu neex loolu dara nekku ci xam nga xam nga daal soxna Digane hmm. benn dëbb ci kër bu ko jigéen féetewoo hmm. su yàggee dina toq bu toqee kër ga tas ah merci dëbbante hmm, bu ndaw si dóoree kuur na góor gi dóor kuur. dëgg la alaaji benn dëgg la. ma ngi ñu dañ daan def kàndang kàndang dëgg la dégg nga. ci biir kàndang yi la ñuy wax lañ nar bu goonee <laughs> waaw waaw waaw yoo xam ni bu góor ñu def jigéen ñi. dëgg la wax ju neex. dëgg la euh, du wàññi dara. dëgg la te it boo ko nanguwul léegi di nga ko nangu beneen heure. dëgg la wàññiwul dara. dëgg la soxna soo jël mu lew la. Hmm. bay ñëpp nekkal la. wallaay sañ ngaa kaf ak moom ngeen bokk nekk. ci mm. génn néeg. Mm. mu dib jirim yaakaar la. dëgg la bàyyi ndey ak bàyyi. Mm. nga oof ko bàyyi ñëpp. dëgg la waaye su ngeen wéetee waxal ko lu neex lu may wàññi. dëgg la. oto ba yebanti ñaari téeméeri nit. sañ nga ko ba baare. ne ko nuyul ma sama yaay. dëgg la du te du ko buuxat. dëgg la na góor ñi di ji atte na góor ñi joxe cër. wallaay bokk na ci woyof sax nag. sa soxna bu joŋee. feexeel yow sa jëm bopp mokkal pooj. dëgg ay feem la. dëgg la yan feem. Mm. bu soxna si toggee gërëm ko ci te sant ko. jërëjëf. bu soxla si defee lal ba mu jekk mm. ne ko bii lal mosuma koo gis wallaay wallaay su waxee jox la ndox ma sekk sukk ne ko moo raw ak lem wallaay wallaay wàññi dëgg la waaye bàyyi soxla si di kuy ku rek dëgg la nga ni këj ngay fuuñ fuuñ nuroo gaynde gu xiif ah? te gis lu mu lekk te mënu koo jot foo jaar sa kër tas alaaji alaaji yàgg fi tewee ah, jigéen ñi ne ma yónni ñu ne nga yàgg fi tewee ah, macha allah macha allah waaye mm. eh, mm. jox nga nuyu askan ba pare nag commenté li ndax mënul ñàkk ndax li nga bëlëm moom mi ngi jërëjëf jërëjëf Adja Dégène xanaa bég rek ak kontaan. ak ñaan tam mënu teewee ko at yu bëree bari mu ànd jàmm ak sutura. ak teraanga. ndax loolu rek moo jug góor. ma bég nag am contentement bu mag. feggoo ak yéen. moo tax dëgg-dëgg bi ñemee talaata may leen di àllarba bii laay ñëw ndax dama ndax sama gaa yi dama leen nam. waaw il faut nu jàkkaarloo. saafonte tubaarkalla ndax réew mi nag tubaarkalla am na loo xam ne lii xalaat la boo xam ne bi dañu war te nga ubbi thème bu am solo thème boobu dëgg-dëgg bu jeexee ci semaine bi sax du wóor du wóor du wóor du wóor du wóor fonk sa dafa am solo dafa am solo li sama papa wax nag moom dëgg-dëgg moom soxlatul commentaire ah. bés ni ki tey góor ñi war nañ ci jàng dara ah. ndax nu de jógunu ci ah, mu togg ba yegg nga ne ko jaraw lakk hmm. ay waay wàññiwul dara waay am na ñoo xamante ne du ñu remarqué seen sañ sa jabar ay léegi yëpp duñ ci remarqué wóorul wóorul mais jigéen suuf si ñun de doxuñ ci loolu ah waaw doy ba mu baax lañ koy <laughs> <laughs> macha allah yàgg leen fi teewee yàgg leen fi teewal fa tabaakallah macha allah allah ji fan la toll ci tam bi fonk sa bopp. sa bopp ak gëm sa bopp. bisimilah allah ji. lan toll woon. Hmm. boo ko dee firi nag. Hmm. ragal naa yi di fi yàgg te du dëgg la dëgg la ndax lépp daani ci biir. dëgg lépp luy tax respect am. ci hmm. ni doomu ak joxante ay cër. mooy fonk sa bopp bala ngaa fonk sa bopp nag. da ngay xam li nga yor lan la. dëgg la laaj. gëm nag sa borom ba pare. dëgg la. Mm. nangoo nag dogalub yàlla ba pare. dëgg la mm. soo ko fonk sa bopp nag. gëm gi nag mooy. Mm. sooy génn sa buntu ko personnalité bi ngay àndal ba foo dem man faa ne doo jooyoo kenn. dëgg la laaj mooy mbub mi ngay sol. dëgg mooy gër mi sol. dëgg la. su seenee ku mel ni Lamine Thiam dogo. dëgg la nag ku yéene ni ko sumee ni ko solal. xoolee daal di tàppoo ñu bokk ànd. dëgg la. ku fonk sa bopp juróom-benn yi dund ci yow. juróom-benn. Hmm, doo xeeb kenn. mbay bankal ndax bindoo sa bopp. Hmm. Hmm. doo jaay kenn doole ndax joxoo sa bopp. mbay ñaar. de doo yéene kenn lu bon ndax jàmm ji nga nekk mayoo ko sa bopp. ci papa. mbay loo am war ngoo mën a bokk doomu aadama yi. na ko joxoo sa bopp. war nga am yërmande ci koo mën a gis ndax cër bi la yàlla jox. ku la mag jox ko cër ndax ñii la jur. jigéen joo gis fonk ndax ndey jële meññ muy neuf mois gone hmm. boo gis yaral te neexal xamoo bu màggee fu mu lay jëm kooku xam sa bopp koy def fonk sa bopp teg ci hmm. la mag woon démb dépasse bu démb mag ñi mosuñoo xiif te mus ta jeex hmm. te boo ko seetee mus sa bari dépasse bu léegi bi du jeex te xiifuñu regguñu rafle nañu dañoo vanteer seen bopp ba ku ñu gis xeeb la te saa boo xamee ni yaakaar tas na ci doomu aadama waa waatal ni yërmande gàddaay na mm. dootu ñibbi su mukk te tukki na sama borom nag lii la gën a bëgg mm. jël Modou Mbaye gër mi ni ko maa def ci yow lii mm. arbitre nag laay def sama diggante yàlla ku muy arbitre war ngaa tiit mm-hmm. dëgg la war naa rafet ndax jël la ba na muy demee duggal ci biir doomu aadama yi maa la sanc maa la yilifit maa la jox xool ni may bëree nag ak doomu aadama yi maa ngi lay xool moo di ni cas moo tax koy dégg naa soxna jigéen du ma ko laaj xalaat. Hmm. moo gën a tardé ci góor. dëgg la. góor dëgg. dellool foofu. dama ne góor góor dëgg mooy du ma laaj jigéen xalaat. moo hmm. gën a tardé ci góor ñi. jërëjëf. Hmm. ndax wërsëg bu gàddaayee am na fu muy jógee. danaa bàyyi naa fi ñàkk jom bàyyi naa fi bor dul fay. tey torox nga. loo jéem dootoo ko man gan laa dem naa. bàyyi woo ma woon xel ba mën maa rasuwaal. fanaan si Modou Mbaye gër mm. bàyyi ba trois heures du matin Modou Mbaye gër mi ni soxna si jógoon mu jóg mu ne ko lan doon xaar at ñëw na luy sa xalaat mun si génn ci wàllu yàlla mm. te bool bew dëgg la koo tane ko dëgg la koo tane dimbali ko loolu la soxna yi def fii nga bokk nekk tey jii di quartier mm. te nga ñee la li tax ñu di la ñee yàllaa ko yëf si yow yërmande li ñëpp fonk leen ñoom te fonk leen te loom dee ko bokk ñoom wallaay wallaay bul beew nag gan guy dikk la yàgg yàgg dina ma a dem loolu laa lay digal muy palaat bu dul jeex mukk waañ am na ci gan waaye ko koy togg ni am na ci cër <laughs> nga dégg loolu di koy def bu wër sa ko fëgg nag ne tey laay dem yàlla ne ko noonu su ne ko maa bi bind mudd moo du bay gër bi mm. mm. maari caabi ji maari mm. kopporfoor bi fu ma jaar toogal mu ne ko déedéet kon dinaa ko mu muñal ba kere muy dem bar sàq mu ngi ko ba ci ko su boobaa maa koy bernde la mu doon def ci àddina maa koy fay kon xelum jigéen ju rafet kondir na góor ba mu raw ci watiir yi eh, mbay ah man de dëgg-dëgg Papa Ndiaye loolu na daf ma dara mbay <laughs> paquet yëpp la ubbi. mbay waaye am na paquet yu des. Mm-hmm. ñëwal bu ci ne bu ci ne tubaarkàlla mu ko. loolu dëgg-dëgg yéen mbay mbay mbay bisimilah. waaye daal euh, Adja li ma dégg daal ci fonk sa bopp. Mm. dañu yaakaar ne sax ci sañse la. <laughs> ak maquillage. Mm. déedéet wutee bu rafet. ak oto bu rafet ak kër <laughs> bu ci nekk gan la. Mm. Papa Ndiaye loo wax na ko ci biir wax ci. gan nag mën na gane ñibbi jot mu ñibbi. gan la de. fonk sa bopp nekkul ci loolu. da gis koo xam ne kii mel ni mbubb rek la am. Mm. waaye fexe na daal ba fonk boppam kenn ba ñàkk boppam papa Ndiaye loo kenn du ko ñaaj. du dugg ci lu war sa dugg. déedéet. du kenn du ko gis ci loo xam ne ni da nga koy xool ne accam. déedéet du wax lu warut a wax. du wax lu warut a wax. doo ko dégg mukk ci loo xam ne lii waroo ko cee dégg. dëgg la. bu dee tànn itam ay ànd. Mm. day seet ñi mat a àndal. jërëjëf. nga xam ne daal dañoo ràññee seen bopp lool te xam ko. mu lëg lëkkoo ak ñoom. parce que bëggul bëggul xam nga xam nga. Adja dégg loolu yëpp dafa dafa tënku ci personnalité. dëgg la. personnalité nag doo ko xëy am tey ci suba gi. Mm. nga nga sàggan ba mu dem 11h. Mm, jërëjëf bu mu dee nga jotaat ci déedéet. da nga koy sàmm da ngay sàmmanteeg moom sa giir dund. dëgg la. loo gis lu mu rëy rëy. yow tubaarkal du rëy ci yow. dëgg la. dara du rëy ci yow yow xam nga lan mooy rëy ci yow. dëgg la sa noblesse rek. moo lay doy tëgg la ak mel ni nga war a mel. sa noblesse. kese moo lay doy ci jikko la. non ci jikko la Adja Dégane dëgg la. Adja Dégane doo xool. ndeysaan wala nga gis. Mm. koo xam ne kile dëgg-dëgg mi ngi doxal ci ay mbiram. ci mbiru boppam ndeysaan ba nga yaakaar ne yow kii lii muy doxal yow da nga war a wàcc sa yoon yi. Mm-hmm. raay la daal boo xam ne bii raay bi raayu gëm sa bopp la doo ko wàcc mukk dara tax nga wàcc ko doo gis dara ci ci ci ci wet gi ba nga yaakaar daal dëgg-dëgg da ngaa war a wàcc jël ko jàll jàllaat ci raay bi déedéet personnalité daal ak gëm sa bopp dama ne kooku juddu lay doon bu nekk ci doomu aadama yi dëgg la ah nekkul nag porte de tout le monde mm, mm, mm, que sa bëgg-bëgg da nga koy limité sa jëf da koy limité looy dugg di ko dox. Mm. yaa ngi naan ah dëgg dëgg daal. Mm. am na loo xam daal bëgguma ko bàyyi. Mm. dama ko war a gàdduwaale. soo ko seetee daal ci course de fond bi mën a koo yóbbaale. yóbbaale sa gëm-gëm ak sa personnalité. te loolu nga teg ko ci suuf. dëgg la Adja dégg man lii laa gis. xam nga mbay yàgg yàgg fi te wér. la bisimilah bëggoon mooy di lan. buural xam nga ko déedéet. <laughs> ndeysaan ah papa foog nga may comprendre nag doomu ndar laa te pël laa. bu bu bu nawet bët see bee. fu waay nekkoon da ngay génne saw jiwu. boo def ab diir ñu ne maaw soxna diggante bóoral ngaa nga ne waaw ndax sama cam bi jeex na ji naa ko ci suuf mm. li mu du wax mooy nit bu bóoralee mm. mm. bët ya day lamsal ba dootu xool lu ko jaaxal cay moo taxoon lingéeri démb ya daan am cër boo xëy xale tey mënuñu ko am dëgg la seen prix réyoon dëgg la ndax fa ñuy xoole rëy fonk sa bopp ak gëm sa bopp mook jonga ma ñu xam boppam a benn bal leen yàlla di dénk bala ñu ko tiire. du koy téye du ma ko tiire pigeon man. déedéet du ma ko tiire jinax. déggoo li moo mooy fonk. ci gaynde géej laay xaal wala éléphant te boppam. Hmm. benn bal la ko yàlla dénk. dëgg ni ko rab yaa ngoog. dëgg la. invité nga nag heure sangam. dëgg la. mbooloo mu bari lay doon. dëgg la seeta li leen di rek nga ko tiire. dëgg la digg ni teg. Hmm. rab yëpp fu dundoo. Hmm. mu ne teg. ba lion au fus di lion ndey gaynde bàyyi gaynde tiireel boo amee gan fu ñu jaar regg ah wala éléphant mi bëri ndawal yooyu lay def bul sax wax alaaji mbay <laughs> éléphant bu bëri ndawal xam nga dafa am <laughs> gis nga gis nga yàgg leen fi te wér amin yàlla boole na ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu euh, invité Massamba Gueye maa ngi koy remercier waat bu baax a baax dafa wax alaaji baat bu am solo hmm? nee na nekk doomu réew mi dagg hmm. visa dem bitim réew seetal fu gën a sori hmm. Chine yaa xam yaa xam L5 yaa xam Australie hmm. ba ca pôle nord nga nekk fa xool gauche xool droite gisoo ndey gisoo baay nee gisoo kenn ku la xam nga gis alalu jàmbur nga war ko mën a jël nga gis ñool la war ko mën a naan gis drogue war mën a jamu gis lenn war ko mën a def waaye nga fàttaliku sa éducation de base bañ la yaree ci jomb jomb wéet gore wéetaliku gore nee na nga ne déedéet lii du sama cër fonk nga sa bopp dafa message boo xamante ne mm. foog nga tibbee ko fu sori ndax dafam suñu ay mbokk immigré yoo xamante ne nekk ñu ngi ñuy seetaan te nit euh, tukki na ba tàyyi sànku ndax xalaat ni kenn du ma gis papa amu fi yaay amu fi mm. te soo fonkee sa bopp keroog ba nga gisul papa gisoo yaay gisoo sax sénégalais gisoo sax der bu ñuul ci ngay gën a wax ni man ambassadeur u Sénégal laa lii du sama cër duma ko def kooku fonk na boppam mm. kon boobu paquet boobu nañ ko dellu si tasaare ko ndax ñu ñuy seetaan mu am beneen paquet boo xamante ne ne ko junj naa ko démb waaye temps bi may ñu ko woon garmi mm. dañu nekk ci dëkk boo xamante ne nit ñi fonkatuñu seen kàddu te man jàpp naa ne nit soo demee ba soo ŋaangee rek soo dëggee ñu ah, xool ko li muy ci dëgg boobu boobu boobu dootoo dara ndax bu njëkkaan contrat amul woon contrat bi ñuy signé amul woon da ngay wax rek ñu xam ne cam kii gar la lu mm. wax lu lu mu wax ci kàttanu yàlla dina ko def jëla ko ci ligne bi ah asalaamaaleykum aleykum salaam rahmatulah ñu ngi laa ziar daal na ngi ziar di la ndokk waaleykum salaam waaw euh, yow rek la noo déglu sang bi foo nuy wooye ak tur bi waaleykum salaam allo ma ne foo nuy wooye ak tur bi da ngay da ngay wàññi télé bi moom wàññil sa télé bu baax. allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Wareef laa bëgg a jokkoo. waaw yow rek la noo déglu. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. gërëm yàlla ak sant ko. alhamdulilah tabaarakallah ah defe naa ne jotu jotuma leen de jotuma Adja Digeen jotuma kii. Ndiaye <laughs> Lo. waaye yaa ngi ah. yaa ngi jot garmi yaa ngi ci biir wareef. waaw maa ngi ci biir wareef na nga def soxna si. sant buur bi ñu sàkk ci coobareem. alhamdulilah yal na yàlla nangu sant yi. amiin amiin. waaw man maa ngi de ooyee Sandaga ñi ma wax Mor Mbaye. waaw mbay mbay fooy woote maa ngi Sandaga. ah ñu ngi sargal waa Sandaga yëpp waay. alhamdulilah ñu ngi leen di. bisimilah Mbaye bisimilah. waaye ñu ngi kontaan di seetaan seen émission yi. ndeysaan da leen sargal waat New York. ndeysaan. nga xam ne ñun foofu la ñu bàyyee ñëw toog. dëgg la dëgg la. gannaaw yàlla ak yonente ba li ñuy foofu la ñu ko yàlla séedee ba ñu ñëw toog fi sunum réew. ndeysaan. bi nga nekkee New York maa ngi la daan xoolaan aussi boo nekkaan downtown daanaka bu dul biir kër yi fu ñu génn si mbedd yi rek xam naa ko dawal naa ko takk ñeent. ndeysaan jërëjëf Mbaye. alhamdulilah ñu ngi leen sant bu baax démb nag doon naa leen xoolaan. ndeysaan. ndeysaan mbay ñu ngi koy sargal bu baax waa Sandaga yëpp waa marché yëpp ñu ngi leen di sargal kon damit paquet yooyu waaw diggan nag ah. euh, nu dellu ginnaaw tuuti mm. Mm. amul benn doomu aadama bu xam sa bopp foog sa bopp ngay tukki say waajur mm. amul waa ci kaw nga xam sa bopp déggu li ma dama ne xam sa bopp fonk sa bopp koy def ko ne boy tukki yóbbaale nga sa baat jeex na jeex na jeex na ku yóbbaalewul nag baati waajur xamul boppam fonkul boppam jëf jeex na réew moom wàccet xam la ko war lu ko soob lay def. jërëjëf la waay muy benn. jërëjëf. lu kenn dul gëmati. Mm. nit ñee gëmatul ndax war yee bari. Mm. Mm. saa bu baree yaakaar tas ndax la ngay wax boo gëmul ngay wax du la gëm. moo bari. da wax fii démb ne la Serigne Cheikh Mbacke wenn waaye da ko loo wax def ko dégg naa ko mu ne ko nga wax tooñ na ma yàllaa ko yow. waaye lu ma nëmmul du génne saw laa mañ mun ko dégg naa doo wax kenn mën ko ka wax tooñ na ma du wax ñëpp de am naa ñu may waxal. Mm. xam nga ña may waxal la. Mm. ña xam seen bopp te fonk seen bopp. Mm. dafa am yoo xëy soog na dëggan. mënuñu ko génn du mën a nekk. Mm-hmm. dëgg ki ngay waxal. boo ko deful nawle. exact loo neex wax. dëgg la. jël ko ci ligne bi. Eh, Mbaye. <laughs> asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi laa ziar. yàlla na yàlla na mu ziar bi. ok yoru lu noo déglu. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. bisimilah bisimilah. dëggan si mais laa bëggoon waxal. soxna si maa ngi lay ziyaar. dëggan si nga baax na. ah nekk mag rek bëgg ngeen kontaan. mag la mag rek nekk mag rek. yàlla na yàlla jàppale. <laughs> amin yaa rabbal alamin. Ah, yaa ngi tawal sama maam. ndeysaan ndeysaan. Ndiaye loo Ndiaye. alaaji <laughs> tonton Ndiaye loo Ndiaye na nga def. na la rek. ndeysaan. man la aw mbuub bu Cees sa tundal du fi mbay. ah ndeysaan waaw waaw ndeysaan sa sët ah, sa sët la sama sët la def mbuub. maa ngi nii rek euh, Ndiaye nit ku baax kooku. alhamdulilah yow yow sama papa nga sama maam nga sama lépp nga nit ku baax nga. loolu am na moom ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam. amiin yaa maa ngi wootee fii ci Paris. ndeysaan ndeysaan ñu ngi nuyu waa Paris yëpp. maa ngi nuyu Maodo Mbaye bu baax. dëgg la am na am kooku woote nag euh, Adja Dégène. Mm-hmm. Paris ga mu nekk. mu mm. ngi dox ci askanu ngéwël lu fort. ndeysaan amul dara loo xam ne lii dañu koy def ca Paris. Mm. te tubaarkàlla na ko mag ña daan taxawee. Mm. ma nga ca. ah loolu te noonu te loolu rek am solo. ah loolu foofu loolu la doon ci ndeyam ji ci Thiès. moom la doon ci ndeyam ji ci Paris di Alamatu Mbay kon fonk na boppam kon de man de bég man de kontaan naa ci moom. jërëjëf mu bisimilah loolu ko war. dëgg la. ndeysaan. na waaw bir na. <laughs> na bir kontaan naa waaw yal na leen yàlla may jàmm ju bëree bëri. amiin amiin bu ndax lu yàgg dëgg la. dëgg la yàlla bàyyi la tey xel. amiin amiin amiin bu kontaan naa maa sama góor mu ne seeni maam jaara day mu ne maa ngi fii ci salon bonko ndeysaan waaw waaw kamara ndeysaan ndeysaan nuyu nuyu ñu ko bu baax ngi sargal waa Paris yëpp macha allah fonk na boppam fonk sa bopp kon mbay bismillah mhm. ci ñaari paquet yi balaa may xuusaa mhm. xam nga ajaa déggéen mhm. euh, dangay indi léegi lu am solo da ne nit ñi luñ la wax c'est à vérifier boo ko seetee doo ca fekk dara waaye bu mu la tax a déraper. yow mi fonk sa bopp. waaw fonkal sa bopp waay waay waay sax ci waay. dëgg la. ki nga xam ne nii la moo wax lu mu la wax mu toxu. Mm. kooku bàyyi ko ak i waxam. ndeysaan yow waru laa tax a déranger. ndeysaan. waru laa tax a changer. ndeysaan waru laa tax a mel noo noo war a mel. ndax moom jikkoom la wax. ndeysaan yow nag bi nga fexe yow ba fonk sa bopp. Mm. sa jikko rek ngay tënku. ajaa diggéen waaye li nga ne mm. réew mi mm. lu ñu doon wax ci léegi c'est à vérifier mm. wallahi lazim réew mi loolu rek moo fi dëgg la te ñëpp dañ leen di ooy baatu kilifa alaaji looloo yéeme jëla ki ci ligne bi allo alaaji léegi mu ne gif la allo <laughs> allo maaleykum salaam euh, foofu wareef la waaw wareef la bismillah euh, man maa ngi woote Florida laay woote mu ngi woote woote Florida Amérique. waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan ñu ngi leen di sargal bu baax. Euh, ñu ngi leen di sargal di leen kontaan kontaan ci thème man dama daan seetaan mais seen bi moo riis ba nga xam ne mënuma téye sama bopp ndax kontaan bi. mooy fonk sa bopp. dama kontaan sama papa Ndiaye mm-hmm. ak euh, Mbaye Ndeye mi ngeen ñu ngi tey. Euh, ak yow Adja Degene ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen ci. thème bi na ngeen teg seen baaraam foofu. na ngeen ci yàgg bu leen ko def benn fan bu leen ko def ñaari fan. ndax thème bu riis la. Mm. thème bu riis la. ndax man yàgg naa voyagé. Mm. Mm. waaye lii ngeen wane ci fan yi nit taxaw ci mbedd. di saw man nga def Amérique ñaari ay at te doo waxuma gis kuy saw waaye dem gannaaw kër man yàgg naa jël aéroport lu man ñaar ci kat ak juróom. waaye néew na lu may jógee aéroport dem ba Dakar en capital te gisuma kuy def gannaaw kër <laughs> ak tànk après jóge ko aéroport dem Dakar seetlu lu ma la wax rek. lu gën boo jógee aéroport balaa dem biir Dakar da nga gis ku jonkan di def di def lu nekk su dul ah. noonu waxuma la taw de man dinaa ko mën sama. Ah, ci diggu dëkk bi ci dëkk dëkk bi Dakar diggante aéroport ak Dakar laa wax. wallaay wallaay ma la wax wallaay wallaay. man dama ne ñaar fukki at ak juróom benn maa ngi ko jaar aéroport. di dem di di ñëw. waaye ñëw na ma wàcc aéroport dem Dakar te gisuma mag mu taxaw jonkan waxuma taxaw tawat waaye dem ginnaaw kër laa wax. exactement loolu ñaaw na. Hmm? ah bon nu ñoo war a defar Sénégal. nu ñi nag léegi li ma gis mooy dañuy yaakaar ne ñoo war a dund ci état mais état ñooy dund ci peuple. waaw hmm. ah, ñëpp ñu ngi bëgg taxaw taxaw na bu ñu bëgg defar Sénégal kenn ku mooy war a seet wëpp comme ni ngeen ko waxee dañuy toppaat wax ji kenn ku mu set sa bopp li nga xam ne ni mooy defar Sénégal nga commencé sa bopp commencé sa kër. Mm. comme ni ngeen koy waxee dañoo kontaan ba mënuñu wax. Mm. seen thème bi na ngeen ci yàgg ndax nit ñi santé yéen yéen a mën a santé nit ñi. ndax président bu fi yëg dina ko bokk ngeen ci ne ko yëgal mais ku fi wàcc bokk ngeen ci ne ko wàcc bon mun ngeen dara ci nit ñi. ndeysaan teg leen seen barab foofu asalaamaaleykum sama xol moo sedd moom rajo du ma woote ci télévision. mais sama xol moo sedd. moo sedd thème bi nga nekk na ngeen ci yàgg. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa yàlla fayal ñu leen gis nga élément yi. dëgg la mi ngi nii nee naa la dëkk bi loo fi wax. démb tey ci suba dafa am ku ma nettali nee ma démb ci deux voies liberté six yi. dafa am benn Mercedes buy daw de. waaw benn Mercedes 190. roue Mercedes ba. Hmm. wekkeeku di rouler di rouler di rouler ba ne ñëw tey ci kaw pare-brise am nee na moom xaw na dee. oto yëpp taxaw. waaw nee na ba waa ji kanang kanangee oto ba xam nga kon oto bu amul ruu taxaw. Eh. nee na waaja ci di daw di daw di daw di dàqi ruu bi ñëw ba ci moom ñëw ne ko yow lii noo ko mu ne mu ne est-ce que sama faute la te du bi moo wekki boppam <laughs> lii mooy senegal ma yow <laughs> lii mooy Sénégal. mais lii mooy Sénégal xoolal <laughs> xoolal xoolal image yi laa sax indil ñu ko gros plan nee naa la yow xoolal autorité à péage bi de laa la wax bu bees bu yaatu bii. ne ci la ñuy traversé. Mm. guddi. bëccëg traversé ah te man nee naa li li ma gën a naqadi mooy saret si nga xam ne léegi ñu ngi yéeg ci autoroute à péage ba waa saret lu muy wut autoroute à péage nga xam ne waa Sénégal neex na defar eh, eh, jikko yi la jëla ki ci ligne bi may nga nga doo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam sang bi ñu ngi lay ziar waaw yal na yàlla nangu ziar ok tur bi naka la Abdoulaye Ndiaye waaw yow rek la noo déglu Ndiaye euh, maa ngi woote man maa ngi woote ci Italie Italie waaw di rafetlu émission bi dëgg. ça fait plus de je mois maa ngi jéem parce que heure bi heure maa ngi liggéey. Hmm. mais dama ko dàkk si quoi tey vraiment parce que ça fait un de cela maa ngi di jéem a woo bi ma leen jot. ndeysaan xam naa tey la ko yàlla tudd. tey tey la ko yàlla tudd parce que am na temps yoo xam ne laa si ma jabar mu ne ma da ngeen nekkoon États-Unis yooyu. dëgg la dëgg la ndeysaan donc mu ne mu ne leen mu ma leen tax ba dëgg si daal. ñu ngi nuyu waa Italie yëpp. waaw di di di di nuyu tata yow dégg yow di lay di lay nuyu. lay sargal bu wér. di lay jaare bu baax di jaare encore euh, vraiment El Hadj Ndiaye Ndiol Ndiaye. fay bu baax. alors euh, euh, bi thème bi am na solo trop quoi wax dëgg yàlla quoi. ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax parce que li ngeen def moom. Hmm. wax jaamu yàlla laa ko ma tuddee ah. parce que yéen yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi dugal yéen a ngi dal xel doomu bitim réew ci xol ngi dal wax dëgg yàlla lii daal émission la boo xam ne am na benn waay boo xam wax bu am solo kaw nee na ah. Alioune Ndiaye Lo Ndiaye dañ ko war a yóbbu assemblée nationale mais lu war lu war a mën a nekk la quoi. dañ ko war a yóbbu assemblée nationale parce que ñu teg am agent dëgg ñëw nañ la ma yóbbu la assemblée nga nekk député non war nga fa dem parce que thème yi ngay développé dafa nekk loo xam ne pour askan wi la askan la kon vraiment ñu ngi ñaan vraiment yàlla may leen gudd fan amiin yaa rabbal aalamiin may wér nga waaye yaa ngi Italie Dubaay maa ngi waaw maa ngi ah. Italie fii waaw. yow de sama uh, suñu mbokku dëkk nga. Sokone ah. <laughs> bisimilah ah Sokone dafa yaatu nag maa ngi ci diggu Sokone nag. ndeysaan wax dëgg man maa man maa maa ngi fii Alaaji Amate mooy. ñoom waxtee jàll bu baax. <laughs> ndeysaan. Eh, mooy suma Alaaji Amate mooy suma mooy suma wat daal. ndeysaan ndeysaan. waaw maa ngi kontaan si loolu xaaral suma soxla dafa ma ko wax. waaw waaw ndeysaan bisimilah. allo soxna si. waa tata Degene. ñu ngi leen di ziar. ñoo ngi leen delloo ziar. bëgg naka waa Italie. ñoo ngi nii rek ci leen nam. mbaa daal mbaa daal dugg leen ci thème bi mbaa fonk ngeen seen bopp. waa fonk nañ ko trop. waaw kay bu baax di leen suivre. dëgg la ñu ngi leen di bëggee wallaay man tamit neex nga ma yàlla na yàlla yokk wér gi ak wërsëg gi gën leen xiir ci diine ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëf jërë ngeen jëf amiin maa waa géejawaay ñëpp ndeysaan waa sama maam sama yaay sama rak sama doom dégg nga banlieue ñoo ko yor de ñoo ko yor ñoo ko yor ñoo ko yor ñoo ko yor bu baax ñoo ko yor moom. maa ngi lay doom. waaw maa ngi lay nuyu. waaw yow na yaa ngi xam nga sa bopp ndax da ngaa soriwul kilifa yi indi. waaw dëgg la dëgg la. Ah, ah, dëgg la mani mani. Ah, waaw woo sa soxna bu taxee saw ngaam niwee. dalaa sori waaye ku la jege doo ko woo. <laughs> waaw loolu dëgg la. <laughs> bu la ci kenn génne. xam sa bopp ak fonk sa bopp mi ngi ci ñaar ñiy dencante dëgg la ci néeg bi la njëkke ne kenn ku ne jox sa morom ab cër mm-hmm. dëgg waaye ku góor gi tam na yërëm ku jigéen gi na koy yege ñuy waxtaan di diisoo say lii moo tax mu coupé ni la xaaral ma jox la soxna si ndeysaan dëgg bu ngeen sore woon mbaa muy demal wool ma ko ca ëtt ba mbaa ca mbedd ma doo ko dégg ah, ah, ah. ah dëgg la <laughs> allah Ah, macha allah waaw ah loolu ba pare changé comportement. non naa yal jàmm ji sax. ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam xam nga démb dafa am sama benn euh, xarit bu may jokkool euh, Amérique. Hmm. wax ak moom ba pare mu ne ma ne quitte pas ma paas la àllaaji. ma ne ko lii daal laa bëgg xam nga bu yàgg ba dafa woon publicité alaaji xamoon nga tawu bata biñ doon wax pas un pas sans bu baax jigéen dafa war a def pas un pas sans bata pas boo def na sa alaaji nekk sa wet waaw pas un ah, pas sans bata loolu indi jàmm pas un pas sans bata maanaam ah. bata ci jëm boppam na nekk waa ah. grand place yi nga gis ci mbedd yi grand place yi dañoo mooy waaye hmm. bu jëkk grand place moo doon sëriñ ak jëkkëram soxnaam moo doon grand place ngeen grand place ko seen ëtt di ngeen di def li ngeen war def ba pare nag grand place yéen ñaar di suttantee xalaat. dégg nga lii. piliyaan hmm. la góor gi daan tëdd. waaw di woor na mbay. soxna si sañ si jàkkaarloog moom. wa El Hadj lu tax piliyaan amatul. a ah, dañ koo talatul. <laughs> alaaji di ma dimbale woon gis lii gis nga lii naa ko alaaji boobu tontu sori wu de tontu sori wu alaaji dimbale woon gis nga bàyyi woon naa ree gis ne nii gën Serigne Thiam daf ma ne damay contrôler sama bopp mais alaaji pour dellu si ci fonk sa bopp xam nga wax naa la léegi waxu bitim réew ndax daf ñu itteel jëla ko ci ligne bay ñu dellu si waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum ngi lay ziar ku baax kooku maa ngi delloo ziar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. laa fay fay bu baax. Ah, ma doon woote ci émission bii parce que y' a même pas 15 jours dama gis ci télé bi ne Dakar mooy deuxième ville le plus sale d' Afrique. Mhm. dégg deuxième pays de. Dakar deuxième. deuxième ville deuxième ville. bu gën a salte ci Afrique bi gën a salte ci Afrique gi. waaye loolu moom day na waar. mu metti ma trop sama biir xol. dégg kon te démb ñu ngi doon war a. Rwanda. ville woote beneen affaire mais faf ma taal télé bi tombé ci thème bi. Dakar kon deuxième ville bi gën a salte ci Afrique. dafa mel waaw loolu la ñuy wax. loolu ku nekk sénégalais ku nekk war na laa mën a metti war nga koo mën a rusloo. dëgg la waay. parce que metti na ci xol parce que tout simplement nit ku nekk. Hmm. da nga war a fier ci li nga doon. laasana indil ma muru marché HLM ba. mais euh, population bi am na ci part. gouvernement bi am na ci part. parce que man dama nekkee xale dama doon gis ay oto mbalit. ah waxoon naa la te aw siyaas. léegi oto mbalit amatul ay sareet lañuy jël ñu koy sotti ci sa sareet yi di daw ci richesse dëkk bi la bokk. sareet yi di daw mbalit mi di wadd. waaw. jëf demal. bu ñu amul dépôt bu ñuy defee mbalit bi. Hmm. ah loolu tamit dafa doy waar. léegi de ku gis. oto mbalit bi tam war na ciy jóg population bi war nañoo yar seen bopp maa ngi jégalu ci wax bi nag. mais daf ma metti euh, sama biir xol ngeen daal ma àq. gis nga. waaw bay demal. xam nga Adja Dégéen. Mm. dañuy yaakaar ne sax léeg-léeg bu nu sulee benn thème te di ci wax. Mm. dafa mel ni eh, ñun ñu koy wax sax neexuñ. daf ñu neex. waaw neexuñu. ñuy sénégalais. parce que bu nu sañoon du ñu ne du ñu ne eh, ville bu. ville bu setul la ñu nekk. waay waay tamit yow kon kon xam nga ne ñun kon ñun am na ñu lu ñu naqari. da nga indi euh, bu yàgg ba euh, bi nga xamee ne tubaarkàlla siyaas mi ngi fi. siyaas. te sax soo dib jiitu leen. so soo euh, dib nag soo nag laa bëggoon wax démb. xam nga Adja Dégène. soo dib nag yow yaa ko laal. ñooñu ñu bu ñu masaana toog bu ñu masaane fi nga xam ne moom lañuy tuur ordure yi. Hmm. toog du fa jóge. Hmm. ca suuf foofu lay toog boo ñëwee sax di sotti mbalit. doo am fit wala xel di ko sotti ci suuf ci biir nga koy def bu amee tuuturu gi moom mooy jóg rato ko ba mu set mu def ci biir. waaw yow tudd nga sawaa dip suñu suñu suñu masaana grève xam nga lan la. Ah. suñu masaana grève xam nga lan la. Ah. dañu ñëw sox toog waaye du ñu contrôlé bokkul ak bii nag. nga xam ne ah, nii naa la kii su eh, <laughs> su oto bi ñëwee tey naa la kii ci tali bi. mais xam nga xam nga. xoolal dëgg xam nga Adja dëggan lii yëpp jikko la. lii moo am ci réew mi. te dafa bari de. maanaam maanaam Sénégal fu mu ne nii urinoir la. à ciel ouvert. amee. urinoir à ciel ouvert maanaam daal yow sooy dox. Mm. fa ko safee maa mm. yaa xam tuur ndox yaa ah. xam tuur dugub fa nga koy defee. dëgg la ma malade ma ne ko malade wax dëgg yàlla loolu jukkooy mala la. Ah, ah, jukko jukkooy mala la mais mais Adja Degene maa ngi lay wax dara. mës nañu dem benn reportage maag benn xale fii. Mm. bu nu demee ba côté caaro yi. ci ci yi nga xam ne nii dañuy jéggi. mu seen benn koo xam ne kii chat la xaj. Mm. mu ñëwee moom xam nga loolu ca passerelle bi la jaar. Mm. ma ne ko lii war nañ ko filmer ah dégg nga muus. muus ma dafa yéeg ca passerelle. ba ci passerelle bi la jaar passerelle bañ tegal nit ñi nit ñi di tëb. ñii di tëb moom mu jaar ci passerelle ba wàcc ma lii de wax dëgg yàlla war nañu may temps rek ba nu filmer ko. may naa la may naa la mur mur bi jàkkaarloog marché ah, bi de amoo ñàkk la sax léegi. amoo ñàkk la mur bi ku fa romb dee. te nag tey Adja da ngeen li ci gën a fort. Mm. ci taatu école yi nga xam ne xale yi ci la ñuy jàngee. déedéet déedéet passé école yi xuusal ba ci ba ci ba ci muru jàkka jumaa yi waa ma ne dama ni. Mm. lii nii est-ce que est-ce que waa est-ce que am na solution alaaji am am na ko de. lii am na ku ko war a mën a saafara ci réew mi. mais loolu waati mais mais Adja Diegane dama ne gouvernement. waaye nag waaye nag lu munul amul. waaye nag xam nga ci kaw lan. Hmm. ci kaw nga doo maslaa nga def xanaa xamoo dictateur am na fu mu baaxee. dëgg la dama mës a dégg ne benn équipe bu futbal bu demoon xaw ma ban réew ñu dóor ko fa dóor yu metti hmm. est-ce que du taawu Robert Guèye la wala dara. Hmm. mu wàcc Côte d'Ivoire ñu jël yëpp yóbbu leen prison. <laughs> non Côte d'Ivoire la non dafa <laughs> non loolu dafa baax alaaji gis nga nit ñi da leen di yar gis nga gis nga léeg-léeg ñuy critiquer ay yenn président mais nit ko ñuul am na fenn foo xam ne su fa tolloo ci indiscipline mm. dafa am yoo yenn yoo xam ne bato nga koy teg dëgg la mais mais dégg doguma la laaj seetal Paris mm. bu fekkee ne yow yow miy conduire da nga takk sa ceinture ki dend ak yow takkul ceinture am su amande bi ñëwee ki takkul ceinture am lay amande yoram newul ci borom oto bi moo tax dafa am yoo xam ne yii dafay sew mais dañ ko war a teg réglementé ko. xam nga mu nekk ci réew mi Papa Ndiaye. xam nga Modou. <laughs> kaaru bu demee ba dootu am lu ñuul. Hmm. boo ko ñuulee du teer. ay saxaat. mu ñëw mu muy jikko. dëgg la yi ñuy wax yëpp. Hmm. benn baat rek la. Hmm. nit bu xamee boppam dëgg. du taxaw ci mbedd. te kër jege. dëgg la nit bu fonkee boppam dëgg. du wanteer boppam ci marché te kër jege. Hmm. dafa am Iran Ndaw dafa wax wax bu am solo bërki démb yàlla na ko yàlla defal jàmm daf ni hmm. bi muy defar këram nga ca àll ba hmm. nee na benn xaritam dafa ñëw ni ko fee lan la mun ko toilette mun ko toilette lan mun ko damaa bëgg mu génn kër gi tuuti mun ko juum nga mun ko tax mun ko bu kilifa dikkee sumi bu moom teg gone ni ci bett bi mu yoruk satala jëm ca biir ci biir fa mu jëm gone dañu xam lam fa def ko ci biir saal bi ci tournée hmm. bu duggee xale du gis mag du gis hmm. muy sutura hmm. yaa nee ma def loola dafa am yoo xam ne ci réew mii mi ngi fi waxuma gouvernement de waaye góor yu sax mënu ko fi yële waxuma góor ma góor yi. du ko fi jëlee moo tax ma la est que dinañ ndax jikko ci boppam Mamadou. mooy saa boo xamee si ba am looy yomb. ku fonk sa bopp fonk sa réew. am looy rus. te gis nga Macky Sall mi ñuy wax. bu ñu yaakaar ne moo ñu defaral Ndakaaru ba mu mel ni Paris mbaa étage ndax nañu seen bopp kenn ku ne doon Macky boppam. Macky hmm. ëpp kenn cër ci réew mi dafay juddoo jànge fi. Hmm. nga juddoo fi jànge fi. Hmm. ngay président de la république muy président de la république. bëgg réew mi defar réew mi fonk réew mi xam sa bopp ba ku fi ñëw naw la. dëgg la da wax léegi ni saa boo tukkee war nga doon sa ambassadeur bopp. dëgg la moom la di ngeen wax. Hmm. luy sa ambassadeur bopp defar fa nga jógee indaale ko fi nga ñëw ba ku la ni jàkk xam ni yow mi Sénégal nga jóge te roy waaye la jël ko ci ligne bi. <laughs> salaamaaleykum wax ji suñ ko waxee yëpp dañu <laughs> salaamaaleykum. salaam. ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. alhamdulilah yow rek la ñuy déglu. Eh, man nag maa ngi woote depuis Suède. mu ngi ootee Suède. Suède ñu ngi koy nuyu di ko. dafa am programme boo xam ne di leen commencé depuis démb boo waxee affaire mbalit bi. Hmm. bu fekkee taadu pour mën cee bokk ba bokk. bisimilah. Eh, dafa am loo xam ne gëm naa ne bu place xasee ba set. nit dootu fa romb di fa tilim fu tilim fu nit tilima rek fekk na foofu tilim di fa tilim pare te li ma bëgg indi ci baatu boobu kàddu moo di dafa am loo xam ne dafa war gouvernement bi ci boppam maanaam il faut ñu indi ay structure yoo xam ni pour affaire mbalit bi xam nga bés bu ñu amoon indus industrialisé woon mbalit bi mm-hmm. ba nga xam ne eh, mbalit bu ñu ko jëlee dañuy mën a départager plastique bi mën a départager kayit bi mën a départager fer bi xam nga li reste ci mbalit bi yëpp déjà mënoon nañ ko broyer mu nekk comme poudre. presque comme ay briques. bu boobaa ki nga xam dafa am ay toolam ak cultivateur dinañ ko mën a utiliser comme engrais. lu mhm. muy tekki. dëgg la lépp loo xam ne moom la ñu récupéré ci affaire mbalit bi. Mhm. luy plastique am na njëriñ. Mhm. luy kéet am na njëriñ. luy fer am na njëriñ. te bu boobaa di ko mën a ëlbatiku jaay ko. dëgg la. ba nga xam ni ci ngay voir le côté économique léegi bés bu ñu demee nag ba borom oto mbalit bi di ñëw di jël si mbalit ci kër yi mu gëm naa ni dañ la peesuloo sa mbalit xewe la ko ci parce que mbalit bi ñuy jël ci ci ci yow lépp la ñuy organiser waat ba nga xam ni dañuy indiwaat au problème dina mën a résoudre problème économique man foofu laa waxee. dëkk yu bëri dañuy recycler seen mbalit. dëgg na dafa mel ne dagg na di xam nga dagg na gis nga dagg na xam nga euh, fonk sa bopp. Mm. ci réew mi foog ñuy xuus di dem. Mm. ndax ki nga xamante ne ne que nee nañu autorité la ci réew mi. Mm. warul bëtt sens interdit. déedéet moom la njëkk a war a di. warul bëtt sens interdit ak otoom. soo waxee mu génnee carte wan la wala ne la xanaa xamoo may kan. may kan. loolu mu ci réew mi. dëgg du jeex. gis nañu autorité boo xam ne day poñe policier. soo waxee mu ne dinaa la summi du jeex loolu warul ne hmm. ndax ku fonk boppam nga xam ne réew mi société bi ñoo la jox baat hmm. nga war a conduire war nga xam respecter sa bopp hmm. respecter insigne bi nga porté respecter nombre tànk yi ngay def respecter réew mi nekkul ci réew dëgg la waay fonk sa bopp dem na ba nga xamante ne su fekkente ne yaa xam ministre nga di député di sénateur loo mënti doon wàcceel sa bopp suufeel sa bopp ndax ku la gis naw la te loolu amul ci réew africain rawatina suñu réew mi dëgg la lu ñu neex def da ngay gis as interdit kenn du ko bëtt nga daal di ko bëtt soo waxee tout simplement parce que nee ngaay nee ngaay kilifa nga nee kenn du wax ak yow mm. nee ngaay kenn mënu la jàpp yooyu dafa yàgg ci réew mi nekk si ba mu ba ba jur benn cancer boo xam ne moo tax ma ne la góom bi est-ce que neex na saafara ah médicament bi koy faj daal tukki na médicament bi koy faj tukki na kañ lay ñëw kañ lay ñëw aéroport kon allah ji kon da nga bëgg wax ne góom bi faju faj dégg ngeen Euh, président Senghor moo njëkk doon président de la république. dëgg la bi Sénégal mooy boppam ba nëgën si war sax di dëgg la ak di jëf yii. bi Sénégal moomee boppam ba ñu. dëgg la waay la waay papa. alaaji alaaji de ba dafa yàgg. Oh. mu dafa am yoo xam ne hmm. bu bu jëkk bu jëkk dama ne bu jëkk boo ma saa tukki ñu ne loolu xanaa Sénégal nga ne waaw yaay dàq reer président de la république ba ne ci réew ma. waaw boobu sénégalais sénégalais la woon. ndax jëf. Hmm. Mamadou seetali juróom fukki at yu bëgg a mat. te saa boo xëyee ne ci benn baa rek saa boo xëyee rek gis lu la jaaxal. waaw ci réew mii gis ci réew mii. 50 ans war nga war a xam ni am na lu xew. moo tax mag ñi nag allah ji dogguma la yàlla bu la dara dog di regretter indépend euh, di di regretter. Euh, avant indépendance. mag ñi koo ci waxal mu ne dëkk bi. avant indépendance la setoon avant indépendance la nit ñi réglé woon avant indépendance la yëpp yomb. jamonoy tubaab yi amoon waa léegi ndax dañu war a nekk tubaab rek bu xam lu baax. <laughs> dëgg dëgg ani valeur yi fi maam bàyyi woon. Mm-hmm. nee naa ba léegi da ngay dox Touba Tiwaawan Ndiassane ak Laayeen gi ci ay kër yoo xamante ne dañuy lay suuf si. maa la ko wax loolu billaay billaay kon ani set gi. dëgg la de suñu bopp. maa ngi de noonu leen noonu koo wax ñu ne dafa tubaabe. Mm-hmm. sous prétexte dafa sat kon léegi ñun ñii der bu ñuul bi xeeb nañu suñu bopp. ba ba kàddu. tubaab mm-hmm. ba ko am ne wax naa la bu njëkkaan contrat amul woon de mbay. loolu foog ñu dellu si ci ndax man ñàkk kàddu ci dëkk bi daf ma yéem da ngay toog kilifa mu lay wax dëgg ne la suba ñëwal wóor na ko ni ne su suba secrétaire am daf koy naan su ñëwee bu mu dugg. ci def boppam kilifa tamatul du kilifa de. gif la gif la. miin naa ko nañ dem pause te dellu si allah gif la nañ dem pause te dellu si léegi léegi dama na sonn ay ay.